dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien comme ni mu ko baaxoo def alxamis bu jot maanaam les jeudis de l'économie tey ji nag dafa xëy séq waxtaan wu yaatu ak amat Soumaré mi nga xam ne économiste la boo xam ne bu ñu ràññee la ci réew mi wax na ci lu soxal wàllum covid 19 maanaam coronavirus ak jafe-jafe yi nga xam ne mën na koo andil réew yi ci lu soxal wàllum koom wax na ci lu soxal intelligence économique africaine wax na xeex gi nga xamante ni CEDEAO ñoo ngi koy xeex ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum blanchiment capitaux ak financement du terrorisme wax na ci lu soxal wàllum faux billets ak ni nga xam ne moom la mën a gasaxale maanaam am réew maanaam ni mu ko mën a yàqe rawatina faux billets yi nga xam ne ñooy jàppa jonge wax na tamit ci contribution bi nga xam ne MEDES def na ko ci secteur de l' économie nationale daat nay wax ne 2001 ba léegi ma ngi MEDES wax na nag kuréel gi nga xam ne moo ëmb entreprise Sénégal change bi nga xamante ni am nañu ko mooy am njiit lu mel ni président Mbagnick Diop mi nga xam ne maanaam dimbalul yàlla sunu borom la am don de nee na président Mbagnick Diop maanaam gis-gis bi ci boppam xam moo sori jële mbir fii yóbbu ko ba mu kawe loole yàlla moo ko ci may yéen kaay gi de la turbine bàyyi mbir moomee wax ci lu soxal wàllum saax-saaxee gi nga xam ne ñoo ngi koy saax-saaxee littoral bi waaye nag soo moytuwulee coow lu rëy dina judduwaat ci réew mi ndax Anse Bernard dafa am nag ak wàllu goo xam ne état bu Sénégal moo ko daggal benn privé sud africain jox ko ko ngir mu tabax fa ab hôtel yéen i kaay gi de la témoin ak Vox Populi ak Les Échos ak ñu xëy di ñu xamal laan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki ay ministre am daal leen di wax na leen balay njeexitalu weeru août yéen ñëpp na ngeen def seen déclaration patrimoine maanaam wax ana lan ngeen amee yéen a kaay gi du source a nee na loolee tàngal ceeb rek la ndax njiitu réew mi di président Macky Sall waxoon na fi ay ministre am ak i directeur généraux am na leen def leen déclaration patrimoine waaye nag ba léegi nii am na ñoo xam ne ñoo ngi layam layamal te amul lenn lu leen ci fekk te loolee maanaam jalgati loi la yéen a kaay gi de la témoin mu ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ministre yi ngir nag ñu dem ci kanamu of nag def déclaration patrimoine waaye nag moom njiitu réew mi di Macky Sall bi muy dog di ñëw moo fi tegoon OFNAC waaye nag ba mu ko fi teg Sénégal yëpp kontaanoon nañ si waaye Sénégal yi dañoo mujjee am mbetteel lool ci OFNAC ndax amul benn liggéey boo xam ne mën ñoo wax ne OFNAC liggéey na ko ba Macky Sall daal di koy jëfee ndax bëri na ñoo xam ne ay jege ñaaleema def nañu fi ay tojaange ak i léexóor yoo xam ne maara day taali ay rapport jam leen baraamu tuuma te amul lenn lu leen si fekk te moom Macky Sall bi mu fi doog di ñëw ñaari baat ñett ci ay discours am muy wax OFNAC OFNAC OFNAC OFNAC gouvernance bonne gouvernance te phrase daal li xëddee na i gi mu ñu xamal nañu moom Macky Sall ci boppam war naa def beneenub déclaration patrimoine ginnaaw bi ñu ko falee ci bopp réewum ci atum 2019 en tout cas daal déclaration patrimoine bu njëkkam ba ba mu waxee huit milliards boobee nag Sénégal yu baree bari amoon nañ si mbetteel yéen i kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ni ki démb benn at ginnaaw bi Ousmane Tanor Dieng mi jiite woon parti socialiste dëddoo àdduna na di wax ne parti socialiste maanaam jamono ji dañoo bàyyoo ginnaaw nag génnuk àdduna Léopold Sédar Senghor ak Ousmane Tanor Dieng Abdou Diouf ak Khalifa Sall mi nga xam ne dañu see seppi seen loxo moo tax jamono ji parti socialiste maanaam dafa jirim loola Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu am na ay retrouvailles yoo xamante ni doon nañu ko wax ci njabootu parti socialiste waaye nag ba léegi nii mbir mi dafa daal di tagga témbe yéen a kaay gi de Libération mu xëy di ñu xamal lan ñu section de recherche def nañu liggéey bu rëy ndax dafa am ay trafiquants de drogue ñoo xam ne ñoo doon dem diggante Dakar ak Rabat maanaam Sénégal Maroc maanaam ñi nga xam ne ñoom waa section de recherche teg nañu leen loxo am na ci ab commerçant am na si ñaar ñaari étudiant marocain yoo xam ne dañoo inscrire université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yéen a kaay gii di réew mi ko di jeex xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu Italie benn doomu réewum Sénégal boo xam ne doon ñu ko fa àtte bu tudd nu Sy moom nag tëj nañ ko lu toll si ñaar fukki ati kaso ak ñeent li ko waral ay at si ginnaaw dafa yeboon ay élèves yoo xam ne toll nañ ci cinquante élèves maanaam mu taxaw doon taal bus ba loolee moo tax ñu jàpp ko jam ko baaraamu tuuma ci lu jëm ci mbirum enlèvement ak mbirum ba tey ci biir yéen kaay gi di ñu xëy fekk Boy Niang numéro 2 la mu xamle nee na Lac de Guiers 2 la soxla ngir clarification journal bi xëy samp ab laaj ne Modou Lo mi nga xam ne Luc Nicolaï tëggal na ko ab combat digganteem ak Ama Baldé Luc Nicolaï nekk si ay jafe-jafe combat bi demul ci nga dikkul mbay lar est-ce que nag Modou Lo du wan ginnaaw Luc Nicolaï dem seeti beneen promoteur stade yéen kay mu ñu xamal laa ñu Real Madrid tey ji mën naa jël championnat bu Espagne si kaw mu dóor Villarreal yéen kay gi ñu fekk fa Sadio Mané la mu xam ne nag nee na waa Liverpool war nañoo def seen kem kàttan xar seen tànk tubay ngir Kalidou ñëw Liverpool ndax dina ma neex lool ma bokk ak moom benn équipe bu ñuy fubal